asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal dama bëggoon ñëw ci ak yéen ci waxtaanu gàtt rek jëm ci doxum ñaxtu bi nga xam ni moom la murit yi nar def ci àjjuma bii di ñëw te mu nar a jóge Masalikul Jinaan dem ba place de l'Obélisque eh, kàddu yi may yëkkati nag maa ngi koy yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ni tey moom la yàlla dënk réew mi muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye dama liir ci archive bu France Senghor di wax ak Charles de Gaulle ñuy euh, sottante xalaat ci Sénégal Senghor ni ko senegal ayu politik mënu koo yàq Sénégal ayu ayu waaso mënu koo yàq ndax Sénégal li ñu am bokk ko moo ëpp doole politique moo ëpp waaso waaye ayu tarixa bu fa amee xamal ni Sénégal yàqu ay wu jëm ci diine wala gëm-gëmu nit ñi heure bu fa amee xamal ni Sénégal yàqu na loolu Léopold Sédar Senghor moo sottante xalaat boobu ak général de Gaulle mu nekk ci archive tubaab ñu nekk nag ci euh, diggante bu xaw a doy waar man bu ma juddoo ba léegi maa ngi soog a gis lu mel nii euh, Cheikh Oumar jaan mi nga xam ni moo waral wax ci dama bëgg a wax ni nit la koo xam ni man dama koy déglu ndax ay waxam dina ciy wax lu mu xam te dina ciy waxit yenn saa yi loo xam ne dina am sens waaye wax ji nga xam ni moom la yëkkati ba indi coow lii moom wax la joo xam ni du wax du ñu war a wax ci Sénégal ndax li ma jàpp ci sama xam-xam bu néew mooy euh, sëriñ tuuba am na lay yu bari yoo xam ni war na tax jullit bu ne def ko ci xolam lay bu njëkk bi mooy lu nit gàtt gàtt xam-xam xam ni dundam gépp daf ko taal ci jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak bind lu bari lu jëm ci jàngal nit ñi diina ji bind lu bareet lu jëm ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc nag loolu rek waroon na tax jullit bu ne dugal ko ci xolam mais bu loolu taxul ni mu bëggee yonent yàlla Muhammad sallallahu ak ni mu tàggee yonent yàlla Muhammad sallallahu waroon na tax jullit bu ne ko ci xolam même bu loolu xawma ci xam-xam nit naka la mën a bëggee Mandela te bëggul Serigne Touba nit naka la bëgg mën a bëggee euh, ku mel te ku mel ni Martin Luther King te bëggul Serigne Touba xaw ma nit naka la mën a bëggee Mahatma Gandhi te bëggul Serigne Touba ndaxte su fekkee xeex nooteel bu tegu ci der dañ ciy bëgg nit je pense que Serigne Touba ku ne daf ko war a bëgg. ndax li mu xeex ndoteel bu tegu ci der ak xeex boobu jeexital bi mu am jeexitalu xeexam Martin Luther King amu ko jeexitalu xeexam Gandhi amu ko jeexitalu xeexam laa am ba pare li mu daj laa daju ko li mu daj Gandhi daju ko li mu daj Martin Luther King dal daj ko ndax sëriñ Touba li ma lii ci archive tubaab yi maa yomba li lim fa daj ku dul wàllu yu la yàlla boo ko dajee dee Mayomba rek waxuma leneen laa wax ci te li ma ci liir bari na lool mais la mu daj ca Mayomba rek ku yàlla tegul loxoom nga nekk wàllu yàlla yàlla buñ la ko tegee nga dee donc euh, ku mel noonu. bu fekkee ni nag sax lu mujj loolu ma wax maanaam ni mu taxawee ngir der bu ñuul sax taxaw nga bëgg ko nag li ci des nag mooy kon nag nga maanu ci ay mbiram ca dëgg-dëgg maanu ci ay mbiram euh, donc euh, leneen li ma déggaat ci ci ci wax ji danga xam ne aussi moo sulliwaat coow li parce que ganu-ganu lu bari tey lu ñuy topp sew Omar Diagne ba mu ko xëy yàgg na mais wax ji mujj wax ci mbindu sëñ bi loolu lu ma yéem la ndax man nag ca dëgg-dëgg bu sëñ bi bindoon ci français danaa ci mën a am lu ma wax waaye comme ci arab la bind te yàlla def na sama arab demul noonu waaye nag laajte naa mbindu mag ñi ñoo xam ni jàpp naa ni dégg nañu arab te loolu ñi ma ko laaj ay docteur lañ ci arab te Màkka laa leen ko laaj ma laaj leen ñetti nit na leen ni ñuy bindee ak li ñuy bind lu ngeen ci gis ma laaj leen ci cheikh islaam islam cheikh Ibrahima Niass ngeen gi gis lan la ni muy bindee ak li muy bind Seydi Hadji Malick na ngeen gis ni muy bindee ak la muy na gis ni muy bindee ak li muy bind Serigne Touba naka ngeen gisee ni muy bindee ak li mu li mu bind ñoom ñëpp ñu wax ma wax ju kawe ci ñoom tontu ma tontu bu kawe ci ñoom ci ni ñuy bindee ak li ñuy bind mais comme ci Sëñ Tuubaa la ñuy wax ki ma ko laaj te muy docteur ci arab daf ni ma Sëñ Tuubaa ni muy bindee du loo xam ne nii daf ko jàngoon ci arab ci jamono jooju jagale yàlla la moo tax ma jàpp ni kon euh, comme ki ma ko wax boroom xam-xam la te Cheikh Omar Diagne man ak moom a yem xëy na français la ñu jàng euh, donc bu naree corriger wala muy bindaat luy sëñ tubaab bind en tout cas de boo boo ba boo bu fekkee da ngaa jàpp moom ni mu bind ci français lettre bi mu bind ci français ak ni mu ko bindee ak jéey yi ci nekk yépp bu naree xoolaat wala muy corriger mbindum Sëriñ Tuubaa ci arab moom mara dee bi si moom donc nag nit ñi nañu xaw a tuuti nañu sérieux tuuti te xam ni Sénégal comme ni ñu koy waxee benn bopp la kenn mënu koo xar jaar monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dama lay ñaan lépp loo mën a def ngir fitna ji jóg nga fay ko nga def ko. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma koy gëstu ci livre bi nga xam ni mooy waaj a génn gis naa li ko jàmm jaraloo Sëriñ Tuubaa mi ñuy waxtaane daf ni euh, bu amee lu gën jàmm yàlla suñu borom wanuma ko fii wanuma ko fañ jëm te man li ma jàpp mooy bu amoon lu gën jàmm yàlla wan ko Sëriñ Tuubaa ndax man nag dama xaw a gëstu tuuti archive yi ci liñ bind ci Serigne Touba loo xam ne ay noonam ñoo ko bind ci moom lan laa ci gis li ma ci gis mooy Serigne Touba wàllu yu yàlla la piir Serigne Touba nitu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pire Serigne Touba xaritu la pire Serigne Touba sufi la pire. liir naa ci archive tubaab yi benn fiche boo xam ni ki ko bind espion la bu ñëwoon jébbalu ci sëñ bi parce que tubaab yi dañu bëggoon xam sëñ bi lan lay lan lay wër ak lan moo ko tax a jóg kooku def fa ñetti weer ak fukki fan bu fekkee damay tënk rapport bi lii la ci wax parce que dañ ko bëggoon laaj sëñ Touba nit ñi muy dajale. nit ñii di ñëw ci moom surtout baay Fall yi alal diñ koy sotti lan la ci jublu lan la bëgg a def nii la tontu daf ni man li ma jaaxal mooy fu mu toog mu ngi samp samp ñaari tànkam ci suuf jonkon jël ñaari loxo yi taf ko nii di bëmb nga xam ni kii kii bind rapport mooy wax loolu de connexion bi mu am amu koog fii ñu nekk fii en mu ni lu ko jaaxal mooy sëñ bi lépp lu jëm ci mbiru àdduna soxalu ko mu ni li mu seetlu mooy xaalis bi li mu daan bari bari àddee ji mosul laal ci loxo boo ko waxee mu ni bunu bëgguma koo laal parce que boo ko laalee ëllëg dañ lay laaj lan nga ci laal ak foo ko dugal mu ni dafa seetlu ni sëñ bi buy wax ba nga dugal ci wàllu àdduna maanaam nguur wala jigéen wala suuf wala lu mënti doon moom yitteem jeex na ci wax jooju mu raconté benn nit bu ñëwoon ci sëñ bi ne ko dafa am ay pël yu xeex ak man sama suuf suuf soo xam ne sama sama ay maam ñoo ko moom dama bëgg nga ñaanal ma ci sëñ bi di ko déglu rek ñu dem ba jëmmi jamono waa ji ñëw na ko ah sa ñaan nga da nangu na ndax suuf sa jotaat naaj sëñ bi tontu ko ne ko suuf soosu da ngay jël jaww ji ko wër ak asamaan ji ko wër yépp nga boole ko moom ko bu fekkee da ngaa jàpp ni fii nga dëkk kooku mooy sëñ Tuubaa rapport boobu waa ji mi ngi ciy wax ni dafa am lu ko jaaxal ndax nee na sëñ Tuubaa Moussa la julli nga xam ni moom moo war a jiite nee na kàbbaru armal bi muy njëkk def maanaam allahu akbar bi muy njëkk a wax waaye nag nee mënul expliquer loolu waaye bu ko waxee dina am lu ma dix secondes yoo xam ne dafa mel ni dañuy gësëm àdduna bi maanaam lépp ay yëngu garab yi vent bi suuf si lépp ay yëngu ba ni tekk sëñ bi soog a def fatiha ah kooku nag moom sëñ Touba jàpp naa ni Sénégal yi buñ ko xamoon nañ xam ni du ko ñuy fooy donc monsieur le président dafa am ñetti mbir yoo xam ni jàpp naa ni war nga koo def ci situation bu mel nii bu njëkk bi mooy nga wax ak Cheikh Omar Diagne mi nga xam ni yow yaa ko fal mu jéggalu ndax ca dëgg-dëgg ku waxul dëgg wax fen dafa juum bu dee nag jéggaluwul parce que dégg naa ñu ni wax na ni jéggaluwul gan nga mosuma koo dégg bu ko jaree yow monsieur le président de la république Cheikh nga jële ko foofu mu nekk seq ak moom nag teraanga yu bari parce que lu ne mën nañ koo compenser ci àdduna ngir am jàmm ndax ngir jàmm am bu fekkee loolu it mënuta a nekk ah, dégg naa ñu Ousmane Sonko dem na ci Serigne Mountakha Mbacké ba wax ni yow yaa xam Cheikh Oumar Diagne moom xamul eh, yow nga xool nooy def yow en tant que président de la république pour li nga xam ne daal lënt lënt la eh, te muy jax-jaxal xolu communauté mouride bi bu fekkee yaay xool noo koy defee nga fexe daal ba euh, xool fooy jaar ba sëñ Muntaxa ci boppam jéem a calmer lu mel ni man daal bi ma juddoo ba léegi lu mel ni maa ngi koy sow gis su ma sañoon nag yow mi nga xam ne yaay gardien des institutions maanaam yow lañu yàlla def nga war a téye réew mi yàlla def yow yaay garant de la stabilité nationale maanaam yow la yàlla dogal tey dalug réew mi yépp ci sa loxo la nekk su ma sañoon daal sama message bi maa ngi jéggalu nag ci xëy na ni mu ko waxee ak fajar geeg yooyu waaye su ma sañoon nga bàyyi ci xel pour ñu trouver solution fii ak àjjuma nga xam ne lii nar a xew ñu xool nu ñuy def ba mu bañ a xew ci jàmm Euh, bu ko defee Sénégal euh, continuer doon réew mi mos doon parce que Sénégal euh, ñëpp benn lañu Cheikh ma Diagne moomu man mii sama mbokk la ci Baye parce que dégg naa ko ba tàyyi mu ni Baye Niass mooy wasilaam te Baye Niass ku ku wegoon Serigne Touba la ku ko bëggoon ci bëgg ji mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum